moo tax mu ne shahru ramadaana mooy weeru koor xabar yi mubtada mu fi muñ fi xasafee la te mooy fan yooya mooy weeru koor alladi ba nga xam ne unsila wàcceef na fii ci moom alquran wa alquran ci weer wii di weeru koor lañ wàccee alquran jëlee ko ci maanaam lawhul mahfuz andi ko ci asamaan si tiim ñu ci benn néeg bu ñu tuddee baytul izza mu tolloog fukki fan yu mujj yi ci weeru koor am na ñu wax ne ñaar fukki fan yaag juróom-ñaar la am na ñu ne ñaar fukki fan yaag ñeent la am na ñu wax tamit lu duwut loolu waaye nag ba mu nekkee lu soob yàlla ci baytul izza ci lañ ko fa door a toxalee nag pare ay xaaj pare ay xew kem xew-xew yi ak kem ni ko yàlla programme di ko indil yonantu bi diiram ñaar fukki at ak ñett nañ ko waxee woon rek ci njëlbeenu téere bi moo tax mu ne huddan mbir mu muy njub luy njuble li naa si ñeel nit ñi wa bayyinaatin muy ay lay yu leer nàññi minal hudaa ci njub wal furqaani muy teqale diggante dëgg ak fen fa man shahida képp koo xam ne teewee na minkum ci yéen ashahra weer wi weer wi di weeru koor kum fi fekkati fal yasumhu na ko xoor kon moo folli wa allazina yutiqunahu fi taami miskin ndax bu njëkk ci lislaam doonte ma doon ngaa xoor te sa loxo jot sa gannaaw bu la neexee da ngay lele rek te doo xoor waaye nag bi aaya ji ñëwee ci la loolu folleeku képp koo xam ne man ngaa xoor bu la fi weeru koor yi fekkee nga ànd ak wér tukki woo lele du la du la mën a maanaam sottal fokk rek da ngay woor su fekkee nag da ngaa feebar feebar boo yaakaaru ak wéram man ngaa ñàkk woor bu paasee nga fay su fekkee feebar ba nag nekk na loo xam du wér mukk xam nga ko man ngaa ñàkk woor waaye bis bu ne da nga koy lexal miskin miskin bu ne benn mudd su fekkee tamit da ngaa nekk koo xam ne da ngaa yore boo maanaam ragal mar boo xam ne dafa dappatu ci yow ci jamono yépp boo naanul rek balaa midi nga teqali ko sa sago kon yow da ngay lele ba bu seen mudd ci miskin su fekkee da ngaa màgget ba mënoo taxawee koor gi sharia may na la ba bu seen nga lele mudd miskin yow nag booy lele bu nit ñi waroon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tamit fanweer yu mudd ngay lele waaye mudd gi tamit miskin bu ne ak mutu boppam naka noonu tamit bu la neexee bu koor gi commencé rek nga natt lépp ndoor joxe ko bu la neexee bët bu set nga natt benn di jox par kenn fekk ba muy jeexee bu la neexee tamit nga bàyyi ba koor gi jeex nga natt lépp joxe ko ndoor ca fan bu mujj ba waaye nag li gën mooy teel gaa joxe bu loola mënut bis bu ne nga joxe waaye nag li nga xam ne moom lañ gën mu nekk ca étape bu mujj ba mooy xaar ba koor gi jeex fan bu mujj ba nga joxe lépp kon koorangoog ak la ca aju su fekkee jigéen nga boo xam ne da ngay nàmpal wala nga ragal li nga ànd ak charia may na la nga ñàkk woor bu koor gi paasee nag da ngay fay am na ci lenn ci fuqahaa yi ñu ci tofal ne sooy fay tamit fan bu nekk da nga ko lelee daanam da nga ci joxe fidya ñenn ngi ne doo ko def far fay rek ngay def moo tax mu ne waman kaana képp koo xam ne nekk na mardan di aji feebar aw ala safarin wala mu nekk ci tukki ba tax mu dagg fa iddatun war na ko fay limab li nga xam ne dagg na ko min ayaamin ci bis uxara yeneen de yuridu dafa namu laaw yàlla bikum ci yéen al usrat jàppandi waaye walaa yuridu namut bikum ci yéen al usrat jafe ndax su bëggoon ak jafe day wax ne loo feebar feebar da ngay xoor loo tukki tukki da ngay xoor waaye nag boo nekkee ci jafe-jafe rek nga feebar wala nga nekk ci tukki te boo wooree moom nekk ci tiis sariya may la nga ñàkk xoor bu paasee nga fay fay gi nag boo gisee ma leen koy fayloo dafa am lim bu ma soxla ci yéen ma bëgg mu mag moo tax mu ne wali tukki mi loo ngir ngeen mën a matal al iddata limba walitu kabiro ngir ngeen màggal laax yàlla xalaa ma adaaku ngir lim leen jubal wala alaakum basta yéen taskuru na ngeen sant yàlla ci loolu de xam nga boo seetee weeru koor bi li ci gën a bëri ñaareel mën naa nekk fanweeri fan fanweeri fan fan bu ne boo ko xooree fukki fan lay taxawee fan bu ne buy fukki fan fukki weer la man jaa bil hasanati falahu ashru amsaalihaa moo tax ñu bëgg nag bu ñu xooree rek ba korite ca ëllëg sa rek nga commencé nga xoor juróom benni fan juróom benni fan nag def ko ci weer wi rek lay tekki juróom-benni fan yooyu boo ko defee fan bu ne ñu fay la ko fan ñaari weer lay taxawee su boobaa da ngay am yool ak ku xoor xat mi yëpp moo tax ku xoor weeru koor ba mu jeex nga tofal juróom-benni fan ci sawaal ci kon ci shawal su boobaa danga am yoolab ku xoor xat mi yëpp de weeru koor wa fukki weer la juróom benni fan ya ñaari weer la yàlla nag ne lim booba laa bëgg mu mat ñenn ñe ne kay li tax yàlla def loo ñu ko di ñu fayloo moom moo xamee la ba ndax boo seetee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam weeru koor yi mu woor ya ca manki moo ëpp ya ca mat ndax bu fekkee ne weeru koor yi mu woor am na ñu ne juróom-ñeenti weeru koor la yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam woor waaye boo seetee juróom-ñeenti weeru koor yooyu yépp maanaam juróom ya ñaar fukk ak juróom-ñeent ci la ko woor waaye nag yeneen ñeent ya rek la woor ci fanweeri fan kon moom dëgg-dëgg moo xam xel laab li tax mu ñuy fayloo bëgg limam weer wi rekk mat gis nga weer wi nag tuddee nañ ko ko ndax ramadan mi ngi bàyyi ko ci ramdu rek ñu ne jamono day day ñëw ki jamonoy tàngoor moo tax ñu tuddee ko ko ñenn ngeen ne déedéet day lakk bàkkaar yi comme ni gël di lakk di lakkee ñax noonu lay weeru koor di lakkee bàkkaar yi ñett ngi nii yonent bi nee na képp ku ko sàmm rek maanaam sa lislaam dëgër na ku leen taxal ku leen sànk nag yow amatoo benn cër mooy góorgóorlu ba nekk koo xam ne dangay war weeru koor di jàngal quran di wattu sa làmmeñ nekk tamit kuy leele say dëkkandoor ci ñam mu ne ñeent yi ku ko def yàlla dana la jéggal say bàkkaar kon loolu nekk na lu am solo beneen bi ñett ya dafa ne ku taxawee julli ak war weeru koor ak sangum janaba mën nañu wax ne sa lislaam taxaw na dëgër na ku sànq ñett yooyu nag bokk na ci ñu gën a sàggan yoo xam ne amuñu benn cër ci lislaam gis nga tamit alquran dafa nekk ci dayoo toftale gis nga bi weeru koor jeexee rek mu tofal ca ñaan kon gis nga ñaan ak koor ñooy ànd muy tekki ne yàlla mii sant leen ngeen woor ci bàyyi lekk ak naan ak jotee mu leen di gis te bu ngeen lekkoon mu gis leen bu ngeen naanoon mu gis leen su ngeen jotee woon mu gis leen moom mooma sant leen ko moo leen sant tamit ngeen koy ñaan te nam leen di gisee bu ngeen doon lekk ak naan na leen di déggee tamit bu ngeen ko ñaanee fu ngeen ko ñaanee fu ngeen man di nekk rek dana dégg seen ñaan ya dana ko tamit nangu nangu nag ak faj aajo duñ benn boo nekkee jaanor yàlla bu sell bu yàlla nangu sa njaam foo waxee yaa rabbi rek yàlla ne yaa abdi yow suma jaam bi loolu na mu ëpp doole lépp fajal la sa soxla nag mooy li nga ñaan yàlla defal la ko ñaan nga nag boo xawee yoon li nga ñaan yàlla dana la ko defal mën la ko defalee nag nu wutee ni nga ko ni nga ko xamee man nga fee nekk di ñaan alal yàlla xam ne boo xamee alal léegi tey nga dee mu soppi la ko fan wu gudd wala bi maanaam nga nekk fi di ñaan fan wu gudd mu xam ne bu sa fan guddee sa mujj du rafet mu soppi la ko mujj bu rafet maanaam nga nekk fi di ñaan leneen ak leneen mu soppi la ko ci leneen ñaan moom ni ko yonentu waxee rek benn mu defal la ko na nga ko ñaanee wala mu soppi la ko ci neneen noo xam ne moo gën ndax yow boo ñaan li nga bëgg ngay di ngay ñaan yàlla moom li gën la lay defal wala mu dencal la ko ba sa biir bàmmeel wala ëllëg mu dencal la ko ëllëg ca biir maanaam yowmal qiyaam mu mu dolli ko sa poids ci sa basket ba bu ñu lay peesal. aay bi nag li ko tax a wàcc ñii ne ay yahood lañ ñoo waxoon yonentu bi ne ko ndax yàlla danañu dégg dafa sooy de yaa yàlla fekkee ne ma ngi ci asamaan ñoom loolu lañ jàppoon. te diggante asamaan ak suuf doxab juróomi téeméeri at la asamaan su ne ak moromam talaay ba doxab juróomi téeméeri at la kon nag bu yàlla nekkee ca fu gën a kawe juróom-ñaareeli asamaan ca nañ ko jàppee ñoom moom istawa al arshi ka arasam dal ca kaw lu kawe loola ca nañ ko déggee ñu ne ko ndax yàlla danañu dégg kon ñenn ngeen ne déeréet ay jullit di ay saxaaba ñoo waxoon ni yonent bi ne ko aqaribun rabbuna fa nu naajiihi am baidun fa nu naadiihi ndax suñu borom ku ñu jege la ba ñu mën a déey ak moom ba bu ñuy wax mën nañoo wàccee suñu kàddu wala ku ñu sori la ba foog bu ñuy wax dañuy war a yuuxu yàlla nag wàccee aaya ja waaye tontu na ñaar ñëpp ku mu ci ñoom ñaar moo tax mu ne wa ida saalaka ndeem laaj na la wa ida saalaka bu la laajee maanaam ànnii ci man bu la laajee ibaadi sama jaam yi an nii ci man di la laaj damaa soreem damaa jege fa inni naka man qaribun aji jege laa ci xam aji jege laa ci gis aji aji jege laa ci dégg ujibu danaa wuyu daawata daa yi ñaan ak aji ñaan ji ida daa nii su ma ñaanee gis nga ida la andi ca sarta ya mooy bu sarta ya matee laa wax de kon nag fal yastajiiboo nañ sàkkoo wuyulu li ñeexal ma ci def samay santaane li ma leen digal wala yuminoo nañu gëm te mooy nañu sax ci ngëm bee ci man laallahum mbastale ñoom yarshadu nañu mën a jub nañu def loolu rek nañu fexe wuyulu ma sàkkumaa wuyulu ci li ma leen sant su ko defee bu ñu ma ñaanee tamit man ma mën leen a fajal seen i aajo kon man yàlla ku jege laa jege ga nag jege maanaa la waaye buñ ne woon tey ku dul yàlla rek jegeem nga jege xis la mën a doon ak sooyam nga ndax dafa nekk luy déplacé wu am fu mu ne am fu mu mën a ñàkk ne koo dégg ñu ne jege ne wala sori rek dafa am fu mu ne am fu mu ñàkk ne te su boobaa fam ne jege na le waaye ñam ñàkk ne sori na le tey buñ ne woon yàllaa ngi Sénégal ci wax yi kon sori na waa Amérique bu neexee Amérique sori na waa Sénégal su ko defee ñoom dañoo jàppee woon yàlla muy jëm joo xam ne dafa am fu muy ne am fu mu ñàkk ne loolu nag boo ko jàppee ci ngay mën a jàppee jege ak sori waaye nag moom dafa nekk koo xam ne fépp la ne kon ñëpp la jege ku ne ñëpp la gis ñëpp tamit lay dégg waaye nag bu saa saa yoo nammee jëmmale yàlla su boobaa kon da nga bokk ci ña koy am fu ñu koy jegeel am ci nit ñoo xam ne dañ koy sori. su ko defee kon nag jege na moom yàlla ci xam nekk na ku jege tamit ci peeg lépp loolu nag dafay misaal rek mat ak xamam nga ci jëfi jaamam yi ak seen wax ya ak yër seeni mbir ak ci nuñ mën di nekkee ñépp rek foo mën nekk ak noo mën a nekkee rek yàlla tabaarakallaahu jàkkaarloo naa na ngay def moo taxoon abu musa al ashari yu wax na ne benn bis ci xare yi ñu jëm xaybar sapp aw xur saaba yëkkati seen kàddu di kabaar ca kaw yonent bi ne leen wàccee leen seen kàddu taxoyafal te te noppal seen bopp maa ngi leen di xam ne innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum waaye waaye noppal leen seen bakkan yi da ngeen wax nànk ki ngeen di woo nekkut ku tëx ki ngeen di woo nekkut ku fàddu moom mi ngi leen di dégg te nekk na koo xam ne ku jege la kon nag loolu dafa nekk ci xalam naanuwaay yi ak ci maqaama yi yi nga xam ne dafa yelloo ci ñi nga xam ne ñu sàggan ñi lañ ci wàllu biral ga ak la ci aju kon nag yàlla ngoo nekk koo xam ne ku jegele ci lépp ku ko ñaan rek ñaan nga mat sarta ya yàlla nangul la ci leen gën a gaaw nag mooy nga nekk ci jafe-jafe saa yoo ko tàllee sa loxo ci lay gën a gaaw moo tax mu ne bal iyaahu tad'uuna fa yakshifu maa tad'uuna ilayhi inshaa Allah boo neexee nag nga koy def kon nag wuyu leen ma ci def li ma leen di sant man tamit su ngeen ma wooyee ñaan ma ma fajal leen seeni soxla yàlla wuyu la nag moo ëpp doole ma fajal la say soxla kon ñaana ngoog fokk rek mu nekk lu ñuy nangu fekk nekkul luy dagg bokk wala muy lu xaraam comme ni ko yonent bi waxee laa turaddu maanaam daawatul muslim laa turaddu illa li ixdal ila li ixda salaasa imma an yad'u bi ismin aw qati'ati ruhumin loolu li bu ko defee kenn du ko dagg ñaan nga nag mën naa xamee wa imma an yuddaxara lahu fi l axira wa imma an yusrafa suu anhu bi qadri ma daa ndax booy ñaan li nga ñaan nga li nga bëgg ngay ñaan yàlla moom buy nangu li gën rek la lay defal ñaan nag pour yàlla nangu ko dafa bëri sartaret bokk na ca dangay nekk nit kuy dundee lu leew di sol lu leew di lekk lu leew di tëdd fu leew di war lu leew waaye booy dundee lu xaraam boo ñaanee yàlla du nangu sax du ñëw na ci yonent bi ne ko damaa bëgg nga def ma nga ñaanal ma ma am lijaaba yonent bi ne ko nekkal di kuy lekk lu lew sa làmmiñ buy jëw bul xaste bul def lara soo ñaanee rek yàlla nangu aw làmmiñ tamit buy xas di jëw di wax lu bon bu ñaanee yàlla du nangu boo ko nekkee sarta yi tamit di julli yi ci mbooloo day waral tamit loo ñaan yàlla nangu ko moo taxoon xajaaj dafa amoon aw nit ñu nekkoon kuufa mën a ñaan lool ku ñaan rek nga gis ko ndeysaanam ni ñaanal buur yi rek buur yi di follee ko di torox rek ba ko xajaaj yégee rek defar ay ñam yi nga ne leen invité leen ca te moom la mu yore dara la gënu ca ba leen joxee ñi lekk ca ba regg rek yàlla rékki seen lijaaba ga bu ñaan ke dara du nangoo ci moo tax kuy jaxasoo buur yi ñi lay jox ci seen quatre-quatre yi ngay war di la jox seen passeport diplomate yi ngay tukki di la jox bi maanaam ci seen kii yi ñuy séddoo te di ko jëlee ci ñaqi baadoolo yi ngay lekk soo liggéey tamit loo ñaan yàlla yàlla du ko nangu keroog ba sëriñ yi commencé jaxasoo buur yi rek ci la fi lijaaba toxaloo ba léegi ci la tamit sëriñ ñàkk ay valeur waaye sëriñ ba muy am valeur sëriñ yi buur yi ñu daan wuti sëriñ yi waaye sëriñ mos na dem di wuti audience di seet buur moo tax saa yoo fi nekkee di ñaan audience naan damaa bëgg a gis président bi nangam ak nangam rek te la nga koy gisee duut luy defar population bi duut luy defal maanaam réew mi lu jëm ci sa bopp la rek xamu sa bopp kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax benn bekkoor mos naa wàcc ca Bagdad xalifa ba déggal julli ñi benn bekkoor mos naa wàcc ci Bagdad xalifa ab jullit ñi digal ne na jullit ñi def istisqa muy baaw naan ñi def yàlla ja tawut ca beneen yoon ba nag tabaarakallaahu yëwoon ya def yàlla ja door a taw ñu commencé bàkk ne ñoo ko yor jullit ñi tamit xaw a jaaxle gëlma gërëm fekk tamit yàlla bu bëggee ab jaam piir dafa yéexee faj aajoom ndax mu bari lu muy torox lu jëm ci yàlla loolu yàlla da ciy kontaan bu jéppee jaam bi piir nag day gaaw a faj soxlaam bu ne yaa rabbi rek mu faj soxlaam rek ndax yàlla dafa sib déglu kàddoom la loolu xadis la yonent bi wax na ne inna al abda yad'u llaha subhanahu wa huwa yuhibbuhu fa yaqulu ya jibril axir xaajata abdi fa inni uhibbu an asmaa sawtahu wa inna al abda la yad'uhu wa huwa yubghiduhu fa yaqulu ya jibril aqdi xaajata abdi fa inni akrahu an asmaa sawtahu mu ne yàlla day wax jibril ne ko diw moomu di ma woo naan naa ko fajal soxlaam yi daal kàddoom gi neexul ma te miinumaa dégg kàddoom lu bëri waaye waaye fajal ko soxlaam te mu noppi kooku nag nga xam ne yàgg naa dégg kàddoom mu yàgg di torox lu jëm ci man bëgg ma fajal ko soxlaam yi yéexe ko ndax xam ne ci ñoo xam ne bu seen soxla fajoo rek ñuy yéex a dañuy dañuy gëj dañuy gëj ñaan yàlla waaye bu ñu xamee problème rek dootuñu nelawati bu dégg bëccëg di ko ñaan loolu nag dafa neex yàlla léegi nag moo tax mu tafal ci kàddu gi ne waxi la daganaleef na lakum ñeexal leen laylata siyaami guddee koor a rafasu booloo ilaa nisaayikum jëm ci seeni soxna hun na ñoom libaasun koddaay lañ lakum ñeexal leen wa antum yéen libaasun koddaay ngeen la hun na ñeexal leen alima xam na laahu yàlla ne annakum naka yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanoona daan hor anfusakum seen bakkan waaye fataaba nag mën a tuub moom yàlla aleykum ci yéen waa afaa jéggal na an ko walis leen fal aada léegi baasiru na man ngeen a jonjoo soxna yi wa bu taxoo ngeen sàkku maa kataballaahu li nga xam ne dagal na ko daganal na ko yàlla lakum ñaxal leen ngeen sàkku ca bànneex ba nag am doom waaye bu leen ci wut rek bànneex wakkuloo lekk leen wasraboo ngeen naan xattaa yatabayyana ba biir lakum ñaxal leen alxaytu buum nga al abyadu gu weex ga minal xaytu ca buum nga al aswadu gu ñuul ga waaye li ma namu ci buum gu weexee gu ñuul gi minal fajari ci fajar laa ci namu xaru fajar su ma ati mu topp ngeen matal asiyaama koor ga leen lay li ba guddi waaye walaa tubaashiruhunna bu leen jonjoog soxna yi wa antum fekk yéen aakifuna way li i'tikaaf ngeen way sax ngeen fil masaajidi yi si jàkka yi tilka yooyu ma wax loolu laay mooy day tere yàlla yi falaa taqrabuhaa bu leen ko jege kadaalika naka noonu yàlla leeral leen ko yu baynu lay leeralee laahu yàlla ayaat yi ay ayam li naa si ñeel nit ñi laallahum mbas na ñoom yattaquuna ñi teet lépp lu bon ba mën a sóobu ci lépp lu yàlla daganal aaya bii boo gisee yàlla tudd ko uhilla lakum laylata siyaami ci njëlbeenu lislaam koor yi ci njëkk a xew su nit ki wooraan diggante ba muy dog daanu yàgg distance su dog moo daan timis ak gexe di benn waxtu waaye bu gexe xasee jot dootoo lekkati dootoo naanati dootoo jotee sa sa soxna bu timis bu gexe jotagut timit te nga nelaw ci diggante timis ak gexe soo xeewoo jeex na dootoo lekkati dootoo naanati dootoo jotee sa soxna Omar ibnul Xataab nag benn bis tabaarakallaahu mu bàyyi ko ca jàkka ji julli ji gexe ba ñib si fekk soxnaam mel na mu war a mel laal ay parfum ba àndatul ak sagoom bakkanam nag rafetalal ko mu ànd ak soxnaam moom ku dëgg la bi mu paree sangu rek jooy ñëw ci yonent bi ne ko def naa musiba de man de ba ma bàyyi ko ci jàkka ji dama fekk sama soxna mel na ko neex sama bakkan xiir ma ci rek ma ànd ak moom yonent bi ne ko ah Omar ngéejuwoon naa lii dal keneen ku dul yow lii de warul woon a dal waaye nag ba ko ba mu ko waxee rek léegi foofu ñeneen taxaw ne ak man de yonent bi man mii tamit dal na ma keneen ne ak man ba coow la bëri foofu rek la yàlla wàccee laaya ji kon gis nga tarxiis ak Omar gi mu gën a soppeeku yërmande ñeel xeet wi yépp bi ci tegu wa kuloo wasrabu xataa yatabayana lakumul xaytul abyad minal xaytul aswad amoon na ci saxaaba yi koo xam ne ku féex la ndeysaanam da doon nekkoon koo xam ne entrepreneur la ci suuf la daan liggéey bi mu demee nag liggéeyi ca liggéeyam ga guddee wàcc sonn parce que bi muy wàcc rek ay timis sonnu ta lekk sonnu ta naan yàlla dogal mu nelaw bi mu nelawee nag te wax naa la bu geexe xasee jot rek dootoo lekkati boo fi nelawee tamit doonte geexe jotagut dootoo lekkati yàlla dogal nag moom mu xeewu continuer koor ga bër set mu continuer koor ga bi bëccëg bi yëkkati ko rek mu xëm ngir xiif mënta lekkati mu xiif mënta mënta maanaam continuer ci koor ga léegi nag loola tamit bañ ko waxee yonantu bi laay ja wàcc ne wa kuluu wasrabu hattaa yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswad di leen lekk ba fajar xar léegi kon li ko doree timis ba fa fajar di xaree mën nga fee lekk mën nga fee jotee sa soxna du ci yàq dara kon gis nga ko ñaar ñi bii ca wàllu soxna ya Omar a tax bii ci wàllu lekk ya mooy kooku nga xam ne limal naa la ko mu doon ku doon liggéey nekkoon entrepreneur ñu ko tuddee Sarmatu ibnu Xaysi wala sarmatu gi nga xam ne ñu ko ci banni xaysi moo waroon loolu la nekk ko daan liggéey ci suuf léegi nag wa kuloo wasrabu hattaa yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswad tamit daloon na Ali ibnu Xaatim ku féex la woon moom bañ a lekk leen fekk ba ngeen ni xàmmee wëñ gu ñuul ak wëñ gu wëñ gu weex moom dafa wutoon ñaari wëñ benn bi dafa ñuul benn bi weex su xaaree ba guddi gi rek bu ne nii rek xàmmee gud wañ gu ñuul gee gu weex gi rek muy lekk ba mu koy xàmmee rek fekk bër set na mu ñëw ci yonantu bi nag ne ko man kat ñaari wëñ yii may njege naa yow ba ma leen xàmmee bër set na mu ne ko dëgg-dëgg daal yaa féex ba mu ne maanaam xaytul abyad minal xaytul aswad minal fajr la ca teg ca xaru fajar maanaam buum gu ñuul gi mi ngi ci namu lëndëm lëndëm ak guddi gi buum gu weex gi mi ngi ci namu xaru fajar gi leeraay gi waaye fajarul saadiq lañ ci namu dafa am lu ñu tuddee sa fajarul kaasib fajarul kaasib ak lëndëm ak leer lay doon goo xam ne day mel ni genn ab till leer goo xam ne du matale su demee nag geneen lëndëm moo ci tegu lëndëm googu bu demee nag ci lay leer ak xaru fajar bu dëggu gi nag dooru ñëw kooku nag day mel ni néeg bu ñuy xeet bi maanaam toiture bu ñuy bu ñuy dindi xam ne day matale rek ba wët ba matale gox yépp nag kooku nag lañ lañ ca namm nag buñu ca xeggee kenn dutul lekkati kenn dutul naxati waaye nag mu ne boo defee leex ci kaaf ci jàkka te yonent ko doon def ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor kooku moom doo joteeg soxna yi foofa rek ngay nekk di wor bëccëg yi di naafila guddi yi wala ngay jaamu yàlla ci yeneen xeet ya waaye yu joteeg soxna boo joteeg soxna rek yàqu na ci jàkka tamit lañ koy defee li ñu gën tamit ñu gën ko mooy nga defee ko ci jaamia juma nga xam ne bu la fa ajjuma fekkee nga mën koo julli doo génn loolu lañ gën a bëgg su fekkee nag duhut duhut duhut duhut ci jàkka ci jumaa kon defee ko noo xam ne ajjuma du la ca fekk ndax moom la ci gën a néew mooy guddi ak maanaam bëccëg ak guddi fa mu ànd ak koor moo tax bëccëg munu ci ànd munu ci ñàkk yonent bi la ca la ca gën a nag ñu gën koo tàmm mooy fukki fan loolu dafa la yonent bi daan def fukki fan yu mujj yëpp daan def i'tikaaf ba bañ ne weer yu feeñ mu jiite mbooloo ma door a ñibbi si këram noonu la ko daan doxalee sallallahu alayhi wa sallam léegi nag nit ñi dañoo tagal seen soxla yëpp leen doole kenn defatul i'tikaaf daanaka ñu néew a koy def yonent nag nee na jaamu yàlla du xam doole la ndax dafa mel ni ku jaayante yàlla ne ko yow yàlla fii laay toog ci sa néeg bii fekk fajaloo ma sama soxla yi du ma ñibbi moo waral ñaareel ku ko def rek gis buntu kon xam na solo lool léegi nag nit ñi li leen taxa tëju xalwa mooy ku ku ñëw jox leen ay millions weexal leen ko wax leen soxlaam tëju nag di ko kurusal di ko kurusal ba soxla sa faju mu door a génn waaye nag damay jaamu yàlla rek maa ngi defi i'tikaaf daanaka jaral tuut ko ñu bëree bëree bëree bëri lépp jamono bi yàqoo ko wax moo tax mu ne kon nag wakkuloo lekk leen wasraboo ngeen naan xattaa yatabayyana ba ta biir lakum ñaaleen alxaytu buum nga al abyadu gu weex ga minal xayti ca buum nga aswadi gu ñuul ga waaye minal fajari xarub fajar laa ca namm gu dëggu nag waxuma fajaru kaafir fajaru saadiq laa wax su ma ati mu topp ngeen matal asiyaama koor ga ca xarub fajar googa ilal lay ni jëm ba guddi waaye nag wala tubaashiruhunna bu leen jonjoog soxna yi wa antum fekk yéen aakifuna yéen a ngi sax ci jàkka yéen a ngi sax fil masaajid ci jàkka ya di def i'tikaaf tilka atte yooyu ma wax xuduudullaahi mooy dañ tere yàlla yi fala taqrabuha bu leen ko jege de toujours yàlla li muy tere feex bu leen ko jege loo jegewul nag doo ko laal kazalika naka noonu yàlla leeralee noonu mi mbir yu leer yi yu baynu lay leeralee laahu yàlla ayaat yi ay aayaam li naa si ñeel nit ñi laallahum nastale ñoom yattaquna ñu teel li yàlla xaraamal ba mën a doyloo li yàlla daganal de aaya bii nag muy bëgg a wax dafa daan am ci xéeféer yi ba léegi sax voilà bu na ci ji jamono lekk xal li jàmbur rek da ngay gis koo xam ne day ñëw trian la 10 millions dem uti avocat neexal ko million seeti juge ba neexal ko 3 millions mën a reesal ñeent juróom-benn millions yi yàlla nag ne loolu xaraam na loolu nag mi ngi gën a bëree ci suñu mbokki naar yi naar yi jaral na leen weexal nit fukki million pour reesal sax lu gën a néew loola moom loolu da leen a neex rek am na ki ñoo xam ne buñ la amee la duñ la fay dañuy yéeg ak yow wàcc war na ñoo la gën a gudd loxo te ñaareel ku la gën a gudd loxo rek moo la gën a man dara ci yoon ndax yoon wi teguwul ci dara du yoonu dara wax ba juboo rek la yàlla nag du wax loolu daara du ko ne loolu na ngeen ko bàyyi ndax lu xaraam la donte li ñu kon ñam taxoon a wàcc sax ñooña maanaam muy muy Rubaahu ibnu Abnaan alxadramiyu ak mbokkam ma ñoo taxoon ay di wàcc waaye te valable na tey ci ji jamono fépp rek ndax nit ñaa ngi koy jëfandikoo di lekk xaalis lu jàmm yi dem tribunal moo tax mu ne wala tàkkuloo bu leen lekk am waalukum seen xalal yi baynakum seen diggante ndax bil baatali ci neen mooy ci la xaraam bu leen ko lekk ci sàcc bu leen ko lekk ci karta bu leen ko lekk ci fëkk watuduloo bu leen yooru bihaa ak xalal yooye jëm ci xàttekat ya nger leen ca bihaa ak xalal ya ilal xukkaam jëmee ko ci xàttakat ya ngeen leen ci li tàkkuloo ngir ñeen ngir ñeen ngeen ngeen lekk ngeen ngeen ngir yéen lekk loo leen fariqan kuréel mooy min amwaal naas ci xàllu nit ña fekk yeneen ca làmboo bis mi ci bàkkaar wa antum te yéen tax la mun a xam ngeen loolu neen la loolu bon na trop gañe nit ki rek yóbbu ko ci yoon bëgg caa lekk mosal ko ca mosal ci maanaam gis ba avocat yi nga xam ne tamit tabarakallahu ku la ci dàq kàcc nga ne kii la yëkkati la ngay jox jox ko ca mu lekk ko nga reesal alli jàmbur ji loolu tamit nekk na loo xam ne lu xaram la kon tey aaya yi wax na ak waa tribunal yi moo taxoon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari saaba mos nañoo jotee ci suuf ñëw ci moom mu ne leen nag li ma leen di xamal kenn ci yéen dana wax moroomam ma wax ma seet ka ca gën a jub wax rek atteel ko parce que mbiram saahir laay atte waaye nag maa ngi leen di xamal ne képp koo xam ne atteel naa ko aqi jàmbur tax ma jox ko ko muy ci suuf ak lu ca xaju nag xam ne loola maanaam xaaj la ko la koy jural ëllëg ca safara keroog ba mu leen waxee loolu ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk rek bàyyi naa bàyyi naa bàyyi ko suuf si moo tax keroog ba ñëwee kenn di xàttul dafa wax ne innama ana basarun mislukum yuha ilayya wa antum taxtasimuuna ilayya wa laala baadukum alxanu bi xujjatihi min baadin fa aqdi lahu ala naxwi ma asmau minhu fa man qadaytu lahu shay'an min xaqi aqihi fa innama aqdi lahu qiatan min naar ba mu ko waxee dafa bakk yaa ñu ñoom ñu jooy kenn ku ci nekk ne ko yonent bi baaxee ko ko yonent bi baaxee ko ko yonent bi nag ne leen dem leen ngeen taxaw fee ngeen mbokkoo suñ paree ñu wantale leen ngeen xaajoo ko kenn ku ci nekk jël genn wàll ka kon gis nga ko ku ragal yàlla noonu lay def waaye léeg-léeg nit nekk ci ay fen ëpp la làmmiñ fuuf wala ëpp la ab avocat mën a gën laa mën a wax fekk tamit am nañ fu ñu jaar ministre ba lekk na ca juge ba lekk na ca bu dossier ba ñëwee rek ñu classé ko fële yow ma nekkoon ci dëgg ñi ñi ñi jox la neem tabaarakallaahu waaye mu ne loolu ku ñu ko def tamit ab dog it la lay jural ëllëg ci safara noonu la du yar bàyyi xel la aaya bi ñaara ñëwoon ci yonantu bi ñeneen ne nañ Muaaz ibnu Jabal la kenn ki di Saalabatu ñëw ci yonantu bi ne ko waaw ñu ne li ñu jaaxal mooy weer wi ne dañ ko laaj yonantu bi léegi-léegi dañuy gis mu tuuti lool mooy bu feeñee bees demaat ba ci kanam mu commencé leer naññi demaat ba ci kanam mu tuuti demaat ba ci kanam kenn dootu ko gisati muy maanaam ahil la léegi nag yàlla def ak ñoom ci balaaxa lañu tuddee iltifaat la ñu laaj amalul leen solo weer wi day tuuti ak day rëy amul njariñ njariñ nga mooy lañ cay def yàlla ne bu ngeen gisee ma def loolu mooy defal naa leen ko ngir ngeen ñi mën cee takk seen i rendez-vous yi ngeen mën a ngeen mën cee takk seen i jëflante yi wane ne maanaam maa ngi lay lebal nangam kañ nga may fay bu weer wi xam ne nangam yi fan bu weer yi mel ne nangam tey bu weeru doon def doon noonu continuer nii rek ko su boobaa comme ni jant bi mel duñ mën a noté suñu rendez-vous suñu jëflante yi ci weer waaye tey boo gisee tey ñu koy mën a noté ci weer ni weer wi dem ba ci kanam mu rëy dem ba ci kanam mu leer dem ba ci kanam mu seex ñu ne weer wi dee na loolu moo koy waral ci loolu tax tamit ñu xam ba xam ne weer wi ci at mi fukki weer la ak ñaar ñu jëpp ci ne kon de weer wu ñu tuddee xor yi ak diggi ak tabaski moo ciy weer yi xaj yi ci ñetti weer yooyu lañ mën a xaj naka noonu weer yi de mooy tolloog gàmm muy rabiul awwal naka noonu bii mooy rakk gàmm bi mooy maam ci koor bi mooy baraxlu bii tamit mooy weeru koor kon loolu tamit loolu ma leen ko cee defal ngir ngeen man cee takk ni ngeen seen jëflante yi ak seen wàllu jaamu yàlla yi waaye bu ñëwoon di continuer rek du ngeen xam nu ngeen di war a jëflante moo tax gisoo jant bi mu ñëwee di continuer rek ñoom ñi nga xam ne ñooy tegtaloo ci jant weeru jant ñoo ñoo defal seen calendrier wane ne lii mooy weeru avril bi mooy mars bi mooy nangam weer sangam ak sangam 30 lay doon yii weer 31 lay doon bii nangam 28 lay doon takk ko ca ñun tamit nag ñun jullit ñi nag ñun mënuñoo sukkandiku ca yooya de jigéen ku ci am régal di yeddawu ci weer ci weeru weer nga mën a weddawoo mu ñetti weer yoo xam ne maa ngi benn fan su fekkee sa jëkkër dafa dee ngay tënji ñeenti weer yaat fukki fan ci weer yi weer ci nga koy mën a defee waaye doo ko mën a defee ci weerum tubaab naka noonu tamit weer yii di weeru weeru koor duhul lu ñuy natt ci weeru tubaab ci weeru weer lañ koy mën a natt naka noonu tamit li nga xam ne mooy wàllu aj yi weer yooyu ci weeru weer lañ koy mën a natt waaye duñ ko mën a natt tamit ci yeneen yi naka noonu tamit yéen lu ëpp ci suñuy jëflante tamit ci weer yooyu lañ koy mën a tànn léegi nag doomi jullit yu bëri dem nañ bëri rek lañ moomoon dem di jëggaani lañ moom ba nga xam ne lañ moomu sax lañ gën a xam ci liñ moom tey tey koo fi dajeeg ne ko weeru nangam fu mu toll mu ne man xaw ma ko wala weeru tubaab mu ne la mi ngi ci la 15 mi ngi nangam ak nangam fekk nañ ba nax ñu ci di di ñu ci fay par weer waaye suñu weer yi kenn du ñu ci fay te nit ku nekk nag la muy fayee ko loolu la gën a xam moo tax aja baax moo tax mu ne yasalunaka danañu laaj la yow yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam anil ahilati ci terute yi dana waral weer wi feeñ tuuti léegi-léegi mu dolleeku léegi-léegi mu rëy ba matale leeram gi matale gox yépp léegi-léegi mu delluwaat tuuti léegi-léegi mu suux taa mu meloon ni jant bi mel rek yàlla nag ne ko xul wax leen ne hiya moom mawaaqitu ayraan li wal naa li naas ñeel nit ñi ñi man caa takk seen i jaamu yàlla man caa takk seen i jëflante seen mbiram mbay meeg seen mbiram commerce meeg seen yeddu yi soxna yeeg seen koor yeeg seen xor yeeg wal xaj ji ak xaj ji li maanaam mu ataf ko ci li naas ji waaw léegi tamit loolu war a yàlla defal leen ko moo war a kon iltifaat la def ci balaaga bañ ko laajee lam leen laaj tontu wuñ ko la leen xamal njariñ la leen tontu mooy lañ cay def waaye bu leen nekkoon bu ngeen gisee mu tuuti def lii lii la loolu dana ca wax ba bëgg a dee te du leen amal njariñ waaye la leen xamal njariñ rek mooy lañ cay def ci biiram moo tax loolu te leen tontu bii nag commencé na dugg ci yasalunaka yi waaye yu bëree bëri la yasalunaka anil ahila cala yasal maanaam anil yataama cala anil mahiri cala bokk anil xamri wal maysiri cala bokk kon nag commencé na caa dugg ci yasalunaka yu bëree bëri la léegi nag aaya bii taxu ci yàlla ñëw na ngir xamal ñu ci ñaari yëf waaye ñëw na tamit ngir sant ñu ci ñaari yëf waa lamsaar dañoo baaxoo woon ku ci xas xarmal ci xaj booy dugg sa néeg doo jaaree ca buntu ba booy dugg sa kër doo jaar ca buntu ba booy dugg ci kër da ngay tëm miir booy dugg sa néeg tamit da ngay xar ba leen buntu jaaree ca su fekkee néegu sàkketi pet yooyu la dañuy yëg ca kaw ca peelu ci biir ca puj ba la ñuy jaaree wàcc ci suuf duñ nangoo dugg seen ngédd yi tamit muy seen tool yi ñu ñàkk di ko jaaree ca bunt ba ndax dañuy wax ne daal xaj gi lépp luñ daan def muy suñu aada dañoo war a wëlbatiwaat suñu aada ñeneen tamit muy muy maanaam yéeféeri ñoom tamit buñ daan aj buñ xasaan xarmal ñoom dañuy raflewu ñu ne suñu yére yi ñuy moyee yàlla duñ ko wëree kaaba gi moo tax ñoom jamono ji ñuy wër kaaba gi dañuy boole di yooxu waaye nag ànd ak di tàccu def tamit awraay kese alquran wa ma kaana salaatuhum inda al bayti illa mukaan wa tasdiyatan yàlla ma ngi leen loolu du mbaax li ngeen teg mbaax du mbaax kaay leen ma wax leen lan mooy mbaax kon mbaax dëgg-dëgg mooy ragal yàlla xamal na leen ko mu tofal ca digal leen ne de leen dikkee néeg ya di jaaree ca buntu ya kon loolu tamit dugalaal ne mbir mu ne boo koy lijjanti seetal fa yoon wa nekk nga jaar waaye mbir mu ne boo ko bëggee dox te doxee woo ko ca ña ko moom du sotti loolu tamit yàlla jàngal nañu suñu doxalin ci àdduna mbir mu ne jox ko seeni borom soo ko joxee seeni borom rek ñooñu ñooy buntu ba su boobaa nga mën cee am solution boo xam ne bu leer lay doon waaye mbir bu la jëyee te jaarale woo ko ci seeni borom ci lëjëk lay dëkk moo waral kon bañ ko waxee loolu mu indi aaya ji moo tax mu ne walay sal biro déet mbaax bi am taatoo ngeen dikkal bu yoota néeg ya min zuhuriha ca gannaaw ca kaw daan jaaree ci seen néeg ya bu yu ñu tabax ca kaw la ñuy jaar bu fekkee ne seen néeg yi yu ñu liggéey ci wabar kawar yooyu la dañ koy xaar jaar ca beneen buntu ba dafa ko beneen buntu waaye duñ jaar ca buntu booba yàlla ne loolu du mbaax wala ki nal bira li fa nekk mbaax wala ki lal bira li fa nekk borom ak mbaax man it taqaa mooy ki ragal yàlla de ragal yàlla mooy mbaax waatoo di leen dikkal albuyuuta néeg ya min abwaabihaa ca buntam ya mbir mu ne dee ko jaaree ca kacay buntam soo bëggee soxna si jaaral ci baayam ndax bu rawatina buy soxna soo xam ne mos a déggu ci mos a dugg ci néegam sëy ta jànq la jaaree ko ca moom donte ko lambu la sax bàyyi jaay buntu ba mbir mu ne tamit nga bëgg a dugg ci usine bi bëgg ko la jël jaareel mbir mi ca directeur ba wala nga jaaree ci ki nga xam ne moom la fa directeur ba nommé mu koy jëlal waaye nag boo bëggee jaaree mbir te jaaree koo ko ca fañ war a jaar tamit da ngay sotti soo bëggee visa ngir bëgg a tukki demal ambassade buñ lay may ñi may la lu nga ñàkk ca lu tuuti waaye boo ko bëgg a jaaree ki ngi ci mbedd mi te nekkuñ bunt ya mën nañoo lekk sa alal ju dul jeex te doo tukki soo feebaree demal seeti médecin yi ñooy buntu ba waaye bul dem seet naan sëriñ ñi maam man yi ñu ne nit ñi ci télé yi danaa def lii mën naa dindi feebar sàngam nga nekk ca sa jàngoro yi gën di yokk te doo dem fenn. kon nag waatul bu tamit abwaabihaa lu sakkan la boo ci doon wax mën nga ci wax ba fanaan ko du jeex. wattaqoo na ngeen ragal laa yàlla la'allakum mbastale yéen tuflihoo na ngeen texe de kon nag mbir yaa ngóog nekk leen nekk koo xam ne da ngeen ragal yàlla ndax ngeen texe. mbir mu ne ngeen jaaree ko ca buntam ba su ngeen ko defee rek li ngeen bëgg am ngeen am ko ragal yàlla nag mooy lépp de gis nga ragal yàlla day tax looy xàtte nga teg ko ci njub ragal yàlla day tax doo bëgg a lor kenn Abu Hanifa ku baax la woon benn majuus di jaamukatu safara da ko yore loon bor Abu Hanifa dem di fayeeku ji bor ba ba jub këru waaja na mu na mu jëlee na na ma ngay fëgg dàll ba rek am sobe su sa bàyyeekoo taq ca kaw miiru majuus ba abi hurayra di fëgg di fëgg ba am ku génn mu ne ko xool ma boroom kër gi ne ko man abi abi man abu hanifa la kon waaja ragal tiit lool foog ne da koy fayeeku si bor ba mu ne ko loolaa ma taxoon a jug waaye dafa am lu ma gaar lu gën a rëy li ma gën a rëy mooy xoolal sa miir bii sobe si ma ci taqal te tayuma ko su ma ko xeetee yàq sa peinture bi su ma ko ci bàyyi nii mu ñaaw loolu laa bëgg nga jéggal ma ngir yàlla bala ma fee bàyyee ko kooka jéggal kooka jéggi dayo na ko waxuma dara bala maa hittewoo dañal sobe ci nekk sama miir bi damay hittewoo dañal sobe ci nekk ci man muy kéeféer gi nekk ci man bis ni ki tey ashhadu an laa ilaha illallah wa anna rasulullah gën naa ne yéen a gën diine ci ñëpp yéen a gën yonantu ci ñëpp tey damay dugg ci diine ci kolal ma kooka kon lu ndaw lam doon sàkk moom Abu Hurayra di ko daw ci la demee ba lu rëy li fekk ko ci mooy nit duggul islam ci sababam benn nasaraan bu bon soxnaam dafa yë jëloon soxnaam yëgal ko ci kaw mbaam mbaam ma dugg ci këri jullit ñi mooy mooy maanaam dëkkab jullit am kenn ku ko xëcc rek tiital mbaam ma rek ca geen ba rek mbaam ma daw rek daane soxna sa soxna sa avorté daan loxo ba damm ñu dem ca xaadi ba mooy nasaraan ba yóbbu waaye ca benn xaadi boo xam ne ab jullit la ci da muy wootee waaye dafa dëng léegi nag mu ne ko xam nga ni ma leen xàtteem yow mii cojjal mbaam mi ba mu daane soxnaay kii dama lay tëj téye la fi fekk bay mbaam mi saxee geen yaa dagg geenam bi waaye fekk tamit ba soxna si loxam bi di wéree mu mën a amaat doom ëmb bu loolu mënta nekk gum tax taw ko sori leen jëkkër ji ndeysaanam nasaraan ba téen ci asamaan ne ko yow lii mooy sa xàtteeb téere lii mooy seen àtte yéen diine waaye waaye yow yàlla mi nga xam ne yaay ku lewet ki yow moo xam ne doo muñ mukk ci xettali ku ñu tooñ maa ngi naan nga dimbali ma ci saasa rek yàlla masax maanaam soppi xaat yi bu bon booba aw aw doj bu soppeeku doj kon nag dañ ciy déggee ci àtte bi ñaari yëf mooy ne xaat yi bi tooñam ngaa tax yàlla def ko lam ko def ñaari ba tamit del moo tudd ko tooñ donte ko bokkul ak diine la kooku am na saraan la bokkuñu diine waaye amoo ci duwaa loolu di ko di ko di ko tamit tooñ di ngay déggee tamit ne yàlla du bàyyi benn détail lépp lu jëm ci ay jaamam ak nu mu ci jëmee rek su boobaa maanaam dana ko réglé ci nga déggante tamit alal yi yàlla da ko bind ngir mu taxawee dund nit ñi waaye bakkan yi nag yàlla da ko bind ngir mu war a jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun kon léegi mu tofal ca kon ne loo teg bi an taatu la'allakum tuflihuna aaya bi mooy waqaatiloo fi sabilillahi yuqaatilunakum li ko tax a wàcc juróom-benneeli ab ca gàddaay ga yonent bi dafa fee bàyyee ko ànd ak jundee soldat ak ñeenti téeméer mille quatre cent war a jëm màkkatal mukarama jublu ci pour umra bi mu ñëwee ba place bi ñu tuddee Xudaybiya tabaarakallaahu dañ ko mooy léegi maanaam dañ ko tuddee ba mu ñëwee ba ci maanaam Xudaybiya am ñu génn foofa ci ay xale yu ñërut ak mag ñu jëmul fenn di ko sànni xeer loolu ñu koy def yonent bi bëgg koo gaar ca la muy def yonent bi nag ci la taxaw yónni Ousmane ne ko kaay demal ma Màkka wax ak ma kilifa ya fa nekk ne leen damaa bëgg a ñëw daal wër si kaaba gi juróom-benn xat ak yi nii gëj naa fi ñëw siyaara si delluwaat sama dëkk ñooñu nag ne ko mayuñu yonent bi mu jege kaaba gi ren déwén lañ ko may yow nag bu la neexee wër kaaba gi ba sa xol seet. Ousmane ku baax la ku baax dëgg boo ko yónnee kilifaam yónni ko luñ bañal kilifaam nangul ko ko warut ko nangu mu ne nag kaaba gi suñ koy xam bay xam fooraayam di koy wër yonantoo tax comme xañ nañ ko yonantu bi man duma ko wër ndax ba fi yonantu bi ñëwagul xamuñu woon xormaay kaaba gi ay xëram ngeen ko wërale woon foofa nag ñu siiwal avant dara rek iblis a siiwal ak musrikuna yi ne rey nañu Ousmane yonantu bi ne ah ñëw ma woon ngir xeex de waaye su fekkee rey nañu Ousmane moom fii laay jaayante yëkkati nday jooram ba teg ko càmmooy ba ne kaay leen ngeen jaayante ci dara ci Ousmane danaa xeex ak ñoom ndax ndawal buur kat saa yi ñu ko reyee foog foog ger am fu mel nii kat maanaam ambassadeurs yi benn buñ ci rayoon tey ci ambassade Sénégal yi ci benn réew foog xeex am danañ fiy kóllëre ga xeex ak ñoom wala ñu dagg relation ba fa doxoon ñu mënta xeex ndawal Ousmane moo doon ambassadeur yonent bi mooy safiir ba léegi nag bi loola xewee foofa rek lañ seen Ousmane ñëw ni ñu nekk defee rayuñ ko du dëgg moom la alquran yi laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta shajara jaayanteeg moom foofa ci xeer Ousmane bi foofu nag mu di leen gis Ousmane da koy reyul ko Suhayl ibn Amrin moo doon ambassade maanaam bu kii ba waa Màkka ya moom lañ xebal mu ñëw war a négocier ak yonent bu ko yonent bi séenee ne ah Màkka de bëgg nañ jàmm comme Suhaylu lañ yónni te Suhaylu mi ngi bàyyi ko ci sëhlu sëhlu mooy tekki lu jàppal dañ koo tasxiir léegi nag mu ñëw ne ko nag daal bokk na ci condition yiñ d'accord fii daal muy màkk mayuñ la nga tegee ko ren da ngay ñibbi da déwén dañ la may ñetti fan nag boo ñëwee nga nekk fii loola ci neex nga def waaye ren moom mën na nekk yonent bi ne waaw d'accord naa xoo saxaba yi ne leen watu leen da ngeen wàcc seen i xaj yu ñu delluwaat ñibbi ñëpp tay ndax booba ñoom ñëpp dañoo namoon màkk yaakaar ne tey dañ fa fanaan gaa yi bañ yonent bi xaw a nag mer ne waaw naka lay aw xeet di texee ñoo xam ne seen ab yonentu da leen a digal ñi da leen a digal da leen a digal ñi bañ Umu Salmata jigéen la waaye ku am xel la soxnaam la woon ne ko ah yonent bi ñii de yow rek lañ bëgg wallaahi bañ ñu dañoo jaaxle rek dañoo foogoon tey dañuy dem màkk ndax dañ ko nam ñu ñëw ba fii ñu ne duñ demati dañuy départ tukki muñ borom fomm néexut ku dema dem ba jub maanaam Italie wala Amérique ñu refule la dara gënu ko métti nga yaakaaroon tey foofu ngay fanaan yi léegi nag xam nga nooy def bu leen waxati dara yow watul rek boo watoo rek ñoom danañ watu yonent bi commencé watu avant ñi pare genn wàllu boppam nga rek ñëpp watu te xelaat boobu jigéen na ko ko jox kon léegi nag ñu laj seen i xaddi yu nag ñibbi xam ne gaw nañ leen ba ca déwén si léegi nag boo gisee aay bi wàcc nag yonent bi ak jullit ñi xiir ti tiit ne ah xéeféer yi xorkat lañ wax nañ ne nañ bàyyi ba déwén dañuy ragal déwén ñëw ñi tere ñu ne duñ fi xajee duñ fi umra kon ñu mujj xeex ak ñoom te boobaa kon def nañ ñaar xeex nañ ci weer yu yàlla xormaal ñaareel bi xeex nañ ci place bu yàlla xormaal muy màkk yàlla nag ne leen loolu seen yoon nekku ci niñ ko xormaalee ci yéen ni lañ ko xormaalee ci ñoom yéen nag bu leen njëkkee rek waaye buñ dalee seen kaw rek dal leen ci seen kaw su boobaa maanaam luñ ca góoboo rek gan ñu gàr ko mu lay wax si moo tax mu ne waqaatiloo na ngeen xeex ak yéeféer yi fii sabillaay ngir yëkkati diine yàlla ji waqaatiloo na ngeen xeex fii sabillaay ngir yëkkati diine yàlla ji allisina ne nga xam ne yuqaatilunakum pare nañ ngir xeex ak yéen li xam solo rek mooy wala taqtadu yéen bu leen jalgati bu leen njëkkee inna laa naka yàlla laa yuhibbu du yool al muqtadina way jalgati ñi waqtuluhum ray leen leen xaysu saqiftumuhum fu ngeen leen man di fekk wa axrijookum na ngeen leen génnee min xaysu axrajookum fi ñu leen génnee woon muy màkka loolu yàlla def na ko yonentu mu gi ne génnee leen fa ñoom ñépp soppee ko ay jaamam mu ne leen lu ngeen foog ne moom naa leen def tey ñu ne ko ku baax nga doomi ku baax mu ne leen kon nag boyal naa leen jéggal naa leen moo tax ñu tuddee ahlu màkka ahlu tulaqa moo tax mu tofal ci ne wal fitnatu kéeféer gi ñu nekkee ak bokkaale gi ak gàllankoor ñi bëgg a dugg asadu moo gën a tar minal xatli ci rey gi ngeen leen di rey wala wala tuqaatiluhum bu leen xeex ak ñoom indal masjid ca jàkka ja alxaraam ba de bu ñu xormaal xataa yu xaatilookum ba ta ñu paree ngir xeex ak yéen fii ca jàkka ja fa in xaatilookum buñ xeex ak yéen nag faqatuloohum na ngeen leen rey zaalika rey googa jasaawul kaafirina mooy fay ak xéeféer yi fa in taxaw buñ daytalee nag bàyyi xeex ga fa ina laa naka yàlla xafoorun jéggalaa kon la rahimun yërëmaa kon la de waaye wa xaatiloohum na ngeen leen rey xataa laa takoona ba du nekkati fitnatun ak kéeféer wa yakun day nekk rek diinu diine li laay ñaal yàlla rek nekk fi fa in taxaw buñ daytalee nag ba nga xam ne tooñuñ leen dal ci seen kaw ah falaa udwaana dé tak jalgati illaa ala zalimina lu dul muy dal ci kaw tooñkat ya te kon nag ñoom buñ tooñatul jalgati yatuñ te kon du ngeen dal seen kaw kon nag yàlla rek a yàlla mu ne leen nangu leen ngeen signé accord bi bu déwén jotee ngeen bëgg a dugg màkka ñu tere leen ko xeex leen ak ñoom ca digg màkka xeex leen ak ñoom ca biir jàkka ja rey leen leen tamit ci beer wiiru yu xorom yi ndax ni mu nekkee lu ñu xormaal ci ñoom di leen ko xormaalee ci yéen te nag lépp lu yàlla xormaal tooñ da koy xotti moom la ciy wax si nii sax moom la ciy tofal ci nii moo tax mu tofal ci ne wal xur dégg nga asahru weer alxaraam ba di bu ñu xormaal bi sëhri nekk na ci weer rek alxaraam ba di bu ñu xormaal niñ ko xormaalee ci yéen ni lañ ko xormaalee ci ñoom waaye nag wal xurumaati xorom yi xisaasun fayu da koy xotti fa man yaxtadaa képp koo xam ne jalgati na aleykum ci yéen faatadoo na ngeen jalgati aley ci moom bi misli maxtadaa comme ni mu jalgati aleykum ci yéen de wattaqoo na ngeen ragal laa yàlla wax la moo ngeen xam ne ana laa naka yàlla maal muttaqina xam naa way ragal ña de mooy weer wi niñ ko xormaal ci yéen di lañ ko xormaalee ci ñoom waaye nag lu ñu xormaal lu mu foor foor na fekk tooñ xamut bu tooñ xasee xam rek xorma dàqu maanaam gis nga tey sa jëmm ji nga jàpp ne kilifa nga moo fonk sa bopp lu mu rëy rëy rëy xale bu ndaw ci mbedd mi boo ko tooñoon rek sa xorma xotteeku mu saaga la ndey doo ci mën dara lu ko waral tooñ ngaa tax naka noonu tamit li ngay fonk sa bopp lépp jàpp ne ko xam xorma nga yow mi may déglu wala nga may seetaan soo tiriyaawoon alal li jàmbur wala nga lépp borom jàmbur bañ koo fay rek xale bu ndaw taxaw taxaw ci sa digg saal saaga la wala mu wax la loo xam ne néexul la te doo ca mën dara tooñ la ko way tooñ moo la ko yóbbu kon xorma tooñ nga koy xotti màkka tamit xormaam nga la muy forfor na fekk buñu leen fa tooñ buñu leen fa tooñee def leen comme ñoom bam saf sàkk ndax kat niñ ko xormaalee ci yéen ni lañ ko xormaalee ci ñoom weer yi ñu xormaal timit nag niñ ko xormaalee ñoom dinañ ko xormaalee ci yéen kon tamit bu boobaa buñ ko defee def lañ ko ñoom moo fa sàpp li lay xamal ne xorma tooñ da koy xotti benn yëwóor bu bon dafa dafa dafa defoon benn cax xam nga loxo doomu aadama ku ko dagg fukki gëlëm ngay joxe bu dee ci xaalis juróomi téeméer ca dërëm yore waaye tey loxo ngi nii bu sàccee lu toll ni rubu dinaar nga xam ne boo ko doon xayma munul bëri bëri ba mat 15000 francs wala mu ëpp ko boo ko sàccoon rek dagg sa loxo bi waaw ndax juróomi téeméer nga xam ne ay millions la boo ko évaluer toll naa ñetti téeméer toll naa kon ñetti junni li ko waraloon mooy loxo bi ba mu sàccagul tooñagul dafa am xorma moo waral ku ko dagg rek war a joxe ay millions mais bi mu xasee sàcc la valeur am wàññeeku na dafa tooñ moo waral ci ñetti junni rek ñu ko ciy dagg moo tax waaj moom ne yeddun bi xam si ma ini asgadin wuddiya maa baaluhaa qutiat fi rubu dinaari jullit ba tontu ko di qaadi Abdul Wahab ne ko isul amaanati aglaha wa arxasaha zulul xiyaanati foofu xam xikmatal bàyyi kon ba mu tooñagul moo taxoon mu seer waaye ba mu tooñee rek amatul xorma kon ku bëgg sa personnalité bu mu bu doo ko ñàkk bul tooñ bul wax loo war ko wax bul wax lu la wóoru bul jëlal li jàmbur waxal lu loo xam bu jeexee nga noppi li nga am tamit mu tuuti mu bëri lekk ci bu doy loo bu jeexee nga nga nga toog mu soo ko defee rek am jàmm te yàlla nag warlul na ne lu nit gàtt gàtt wër sa dana la jox yére boo sol dana la jox tamit maanaam néeg boo dëkkee doonte daf mel ni tàggam bi tax naka noonu tamit dana la jox tamit loo fàttee sa xiif muy am mburu moo lekk ba mu paree saxaaba yi ne ko nag xurum xorom nag mu ne ko xorom almilxu mi maa yu xasab xorom bokk na ci li nga xam dañ koy xisaabale di ko réglé kon nag waxuma la jumboo beeg tigmasi beeg ca xaju moom rawat na nopp woon dégg nga de moo tax mu ne wa anfiqoo na ngeen dundalee fii sabilillahi ngir yëkkati diine yàlla ji dégg nga yëkkati leen dundal leen seen alal ci yëkkati diine yàlla ji de wala tulqu bu leen sànni bi aydikum seen loxo yi ila tahlukati jëm ci alkade bu leen xaru bu leen rey seen bopp wa ahsinu na ngeen rafetal inna laa naka yàlla yuhibbu dana mu yool al muhsinina way rafetal ña aaya bu sakkan la boo déggee mu ne anfiqu fi sabilillahi mooy jël leen seen alal di ci jënd ay ngànnaay di ci wut ay xeexukaay waaye tamit jug leen ngeen jëm xeex yi bu leen rey seen bopp wala tulqu bi aydikum ila tahlukati mooy bu leen yafal seen bopp toog saa yoo toogee rek yaa ngi ray yaa ngi rey sa bopp ndax yaa ngi yefal sab noonu muy gën a bëri di gën a bëri ay ngànnaay bu dalee ci sa kaw rek faagaagal la moo waral kon xeex nag day waral néewal doole sa noon day waral tamit wàññi limab sa noon bi waaye ñàkk a xeexi nag moom day waral may doole sa noon may tamit may ko tamit ay ngànnaay yu gën a bëri soo réew mu la gën a bëri xeex rek gën di gën a gën a gën a am doole ëllëg moo tax mu teg ca ne dee leen dem di xeex yi ndax xeex taxut a dee ñàkk a xeex tamit terewut a dee ku war a dee da nga dee dee nag moom genn rek la waaye sabab yaa bëri yàlla lu mu bëgg mu bëri daf ko sabab yu bëri diw dee na dafa accidenté diw dee na jaana ko màtt diw dee na biir baay biir baay taw diw dee na dafa amee feebar nangam sabab yu bëri rek la waaye dee rek la ñoom ñëpp ci dee lañ teeree kon lu yàlla bëgg mu bëri de da ko gën sabab yu bëri man lam yamut bi say fi maata bi xëyri yi te xaalifatil asbaabu waaye fekk wal mawtu waaxi dee moom genn rek la wala tulqoo bi aydikum ila tahlukati naan sàngara ci la dugg ndax baaxul ci sa santé soo ko jëfandikoo ba dee da ngaa xaru yaa ngi rey sa bopp toog cigarette ci la dugg bañ nañ ko ba ne dana joxe cancer bañ nañ ko ba ne baaxul ci sa santé su boobaa kon boo ko jëfandikoo dee yaa ngi xaru yaa ngi dugg ci wala tulqoo bi aydikum ila tahlukati yàlla mën a dama leen a yërëm bu leen rey seen bopp rey sa bopp nag mooy jëfandikoo lu la jiwu rek lépp loo xam ne boo ko jëfandikoo mën na laa andil feebar su boobaa rek boo ko defee yaa ngi rey sa bopp wa atimoo de leen matal matal leen alxajja xaj wala umrata umra lillahi te yàlla tax de bu leen matal xaj yi ak umra yi ngir ngis taw ngir bëgg turu rëy bu ngeen di xaj rek di ko matal na fekk yàlla tax waaye fa in uxsurtum dem gaweef na leen ba mënu leen koo matal fa mastay sara war na loo xam ne jàppandi na minal hëdd yu ci hëdd yu waaye walaa taxliqoo bu leen bu leen wat ruusukum seen bopp yi xattaa yëpp lu ko bata jotee al hëdd yu hëdd yu bi maxiloo barabamba barabamba nag ci saafi yu mooy fi ñu la gawee ñenn ñi ne barab ba mooy foo ko mën a reye rek dégg nga loolu mooy ma ngërum saafi yu fa man kaana ku nekk min kum ci yéen maridan di aji feebar aw bi wala nekk ci moom asan ak lor min si ca boppa lu mel ni ay teeñ wala xaañu-xaañu ba mu wat boppa ci xarmal fa fidyatun war na ko njotu min siyaamin ci koor ñetti fan aw sadaqatin wala sarax te mooy juróom benn miskin kenn ku nekk ñaari mut aw nusukin wala gàttab jaamu bu muy rendi boo xam ne da koy rendi defe ko maanaam fidya kon lii war na koo def kon gis nga ku doon xaj yi wala ngay umra ji départ bay dugg màkka ñi gaaw la ne doo ko fi xaj yi comme nañ defoon yonent bi ca Xudaybiya su boobaa kon rayal sa hadiyu foofa rek war sa bopp ñibbi noonu la yonent bi defoon da nga xam yool ak umra te umra tamit duwut lu ñuy fay moo tax bu ñaa am umratul xadaa mooy umra ju boobu rek la lañ ci namu moo ca déwén sa di di juróom-ñaareelu at ma su ko defee kon noonu rek ngay def fañ la gawee rek ray fa sa hadiyu su ko defee léegi sa mbir jiyaat beneen acte bi nag mooy su fekkee da ngaa xajoon ba dañal lu warutoon a dañ ci yow moo xam dañ koo dañal ci coobare wala nga dañal ko ci wala nga dañal ko ci loru kon nga sa bopp tax war woon a watu tabaarakallaa sa bopp bi am na ay góom ba tax nga wat ko wala ay teeñ nekk ci tilim tilim yëg cugu-cugu yi ba nga dindi ko wala bi maanaa nga sol yére ba warutoon a sol te dangaa waroon a xarmal yu mel noona kon fidyatu ngay def fidyatu bi nag yaa ngi koy mën a defee ci ray gàtt wala nga lexel juróom benn miskin kenn ku ne ñaari mudd wala di maanaam nga xoor ñetti fan kon yi moom ngay war a def dégg nga suñ la gawee nag xaddi yu ngay joxe am na ca beneen gàtt bu ñu war a ni war koo tur mooy maanaam gàtta fay su fekkee dangaa xarmal rey aw rab bu ko jug àll dañuy seet ba mu tolloog ci ci ci ci rabu rabi kër gi nga fay ko boo rayoon bodom dañuy wax ne demal nga joxe bëy wala xar ñoo tolloo boo rayoon nagu njaaxal dañuy wax demal nga joxe gëléem waaye boo rayoon pitaxam màkk tamit fekk yaa ngi xarmal da ngay rey ab gàtt ngay joxe loolu la ci yonantu bi xattee soo ko amul nag maanaam ñi seet rab wa xaymaam ci dugub ñu natt ko pari mudd mudd bu nekk nga fay ko nga nga def ko muy muy muy fan booy xool xam nga loolu kon tamit nekk na lu métti métti ñi seet xaymaay rab wa tamit ca xaymaam ci la muy tolloog tamit nga sarax ko miskin bi mën mën na nekk boo ko amul nag ñi seet ko nga doon koo xool léegi nag moo tax mu indi àtte yooyu beneen àtte bi nag mooy beneen àtte bi mooy su fekkee ne fa in amintum fa isaa amintum fa isaa amintum su fekkee wóolu ngeen ba tax yéen a ngi xaj wóolu ngeen seeni noon amuleen dara lu ngeen di ragal xaj leen ko tamu mat waaye su boobaa nag ñetti façon xaja fi ne am na bu ñu tuddee tamato am na bu ñu tuddee xiraan am na bu ñu tuddee ifraat boo defee xiraan wala nga def tamato te dëkkoo màkka dangaa war a rey hadi su boobaa nag moo tax mu ne fa iza amintum su fekkee wóolu ngeen ba dugg ci xaj ku dugg ci xaj gii nag fa man tamat fa man fa man tamattaa képp ko xam ne noflaayu na bil umrati ci umra ilal xaj gi ci xaj dafa boole xaj ak umra kooka de fa mas tay sere war na ko loo xam ne jàppali na lu na haddu ci haddu yu fokk mu rey haddu dina rey ab gàtt dégg nga fokk mu rey ab gàtt fa man lam yëjit képp koo xam ne amul gàtt ba muy ngiram ñàkk fa siyaamu war na fa siyaamu salaasati ayaamin war na ko xoor ñetti fan fii la xaj ci jamonoy xaj fi mu xaramalee ba taxawaayu arafa lay fexe mu xoor fa ñetti fan moo waral dañuy bëgg mu xaramal njëkk fan ak juróom benn ba ndax bisab arafa di juróom ñeenteel dañuy sip ku nekk màkka mu mu xoor ko nga xam ne balaa balaa bisab arafa rek fekk ñetti fan ya jeex wa sabaatin ak juróom-ñaar isa rajaxtum bu ngeen dellu si ngeen koy xoor bu ngeen ñibbisee seen réew léegi na ngeen xoor juróom-ñaari fan mu fekk ñetti fan yi nga waroon màkka comme xamuloo addi yu moo rey te yaa ngi def xaj ak tamatoo wala xiraan su boobaa nag tilka yooyale muy juróom-ñaar ak ñett boo ko boolee xasatun fukk la kaamilatun yu mat sëkk xam nga fukk la kon yàlla ne zalika loolu li man lam yàkkun yàlla na koo xam ne nekkut ahluhoo ñoñam xaadiral masjid yi wàllu jàkka ja xaraam ba di buñ xormaal mooy dëkkut màkka bu donte ne sa digganteeg màkka xëpp na marxala tey ni su boobaa tamit maanaam bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko manqué ba tey yaa nga dëkko yaa nga màkka bu ko xëppee nag dëkkatoo màkka kon boo defee tamatoo da ngaa war a rey haddi waaye nag dëkk ak fi nga dëkk ak fi sa bàyyi dëkk duñ benn nit ku ne fa soxnaam dëkk rek mu yóbbu fa soxnaam fa la dëkk tey ñi nga xam ne dañoo dem màkka yóbbu fa seeni soxna foofu lañ dëkk bu ñuy xaj xaj tamatoo duñu lay dara bu ñuy def tamit xiraan duñu lay dara waaye su fekkee dañ faa nekk ñoom rek fa nekk waaye seen njaboot bi yépp ñu ngi Sénégal dañuy dem ak a ñëw su boobaa ñooñu bu ñuy bu ñuy bu ñuy xaj maanaam fokk ñu def tamatox ndax dëkkuñ foofa maanaam fokk ñu ñu def maanaam ñu def ñu def hadiyu kon loolu tamit fokk ñu bàyyi ko ci xel dégg nga kon nag ak yaa ngoog wax la moo xam leen ne ana laa naka yàlla dégg nga moo tax mu ne kon ku def loolu lan mooy saxatte xaadirin masjid moo tax mu ne li ma lam yàkkun ahlu ahlu mooy soxna nit ku nekk fu soxnaam nekk rek fa la dëkk dégg nga mu teg ca ne wax la moo xam leen ne ana laa naka yàlla saddul xiqaabi ku tar la mu mbugal alxajju xaj asrun ay weer la maalumaat yu ñu xam mooy xooli diggi fukki fan ci tabaski ñu ne tabaski lépp lii rek mooy xaj fa man farada képp koo xam ne soobu na fii na ci weer yooya ku ja soobu alxajju xaj falaa rafasa déet ak booloo ak soxna wala fusuqa déet ak génn ak topp wala jidaala déet ak daggi santé ñett yi yépp kenn du ko def fil xaj ji ci xaj kenn du ko def soo xasee xaj ñett yi wàcc na la bul dagg santé bul xuloo bul joteeg soxna bul def dara boo joteeg sa soxna te fekk sànne maanaam taxaw goo arafa boo ko wala taxaw nga waaye sànne goo ñëmatul xàq ba wala sànne nga jëm xàq ba waaye maanaam watoo goo taxaw sànne taxaw taxawaay if tawatuwaa fu ifaada wala sa xaj ga yàqu na bu yooyu jiitoo yooyu door a xam ne du ca yàq dara dégg nga wa maa tafalu lépp loo xam ne def ngeen ko min xayrin ci xiw ci saraxee ak lu mel ni moom yàlla boo xam ne ko laahu yàlla dana fay leen ko wata sa wadoo di leen yóbbulu fa ina xayra zaadi naka gën ci yóbbal ak taqwa mooy teet ba doo ragal ba doo laaj kenn dara mi ngi wàcc ci mbooloo mu daan bàyyi koo yaman naan dañuy wakkilu di xaj si rek duñ andi dara nekk ca mbedd yay fanaan di gàcciwu ci kaw nit ña yàlla ne déedéet bala ngaa xaji wutal yóbbal boo dundee mën a am lépp la ca war paas ak domi sax la ca war yëpp fa ina xayra zaadi taqwa dégg nga wa taqoo nii ra dégg nga ragal leen ma yaa ulil albaabi yéen borom xel yu sell yi de ndax yéen a ma xam yéen a ma mën a ragal dégg nga laysa alaykum waru leen junaahun bàkkaar an tabu taxoo ngeen sàkku faddalan maanaam wërsëg mi rabbikum bàyyi ko seen borom di haji boole ko di commerce xaale jënd fa marchandise jaay si ko fii ba ngay dem nga yóbbu xaale dara newut ci yàlla tofal ca ne fa iza afattum su fekkee ba maxu ngeen mooy maanaam min arafaat bàyyi ko arafa faskuroo na ngeen tudd laaha yàlla indal masharil haram fa masharul haram bu ngeen fa taxawee fa la yonantu ba taxawoon di tudd yàlla ba maanaam jant bi fenk ba mbiram ma soppeeku waskuruhu di leen ko tudd kama hadaakum ngir lim leen jubal wa in kuntum nekkoon ngeen min qabli njëkk ma leen jubal la min ad-daalina bokk ca way réer ña waaye suma afidoo topp na ngeen di taxaw yéen waa Quraysin min haythu afaada fi nga xam ne taxaw na fa naasu nit ñi dañoo bewoon ne ñu ne nit ñi ñoo leen gën a foor bu ñu war a taxaw Arafa rek ñu dem taxaw ci wetu Musdalifa yàlla ne d'accorduma ci dee leen di taxaw fa nit ñee taxaw ca Arafa yéen a ñëpp a xam wastaxfiru di leen jéggalu laa yàlla seeni bàkkaar na laa naka yàlla xafoorun jéggalaa kon rahimun yërëmaa kon la waaye fa isaa qadaytum ndeen joxe ngeen manaasikum seen ak aj liggéey ngeen ko ba lépp jeex faskuroo na ngeen tudd laa yàlla ka sikkarikum comme na ngeen daan tuddee abaakum seen baay yi dañ daan dajee foofa ca arafaat ca musdalifa di bàkku ca minnan kenn ku nekk tudd sa baax baay yàlla ne seen baay yi nag bàyyi leen ko tey tudd yàlla mi def loolu seen baay yi ngeen tudd yàlla lu bëree bëri aw asdu wala ñu gën a tar sax fikkaram ci tudd waaye moo waral na ba yàlla waxee lii fa mi ne naa si am na ci nit ñi man ñoo xam ne yokkul dañuy wax ne rabbanaa yoo suñu borom adduna yàlla nga ñu joxe fi dunaa ci àdduna rek aw yiw àdduna rek lañ bëgg ku di kuy ñaan àdduna rek sa mbiram xaj wamaa lowu di du ko ñaxal fil axira ci àllaaxira min xalaaqin ci benn cër waaye yow mi nu am na ci ñoom man ñoo xam ne yokkul dañuy wax ne rabbanaa yoo suñu borom adduna yàlla nga ñu dikkee fi dunaa ci àdduna xasanatan xéewal mooy wërsëg ak jàmm ak gudd fan wa fil axira joxum ci àllaaxira xasanatan xaljaana waqi naa yàlla nga ñu fegal azaaba naari mbugalam safara am na ñoo xam ne lii lañu ñaan ulaayka yooye gaay lahum ñaan leen nasiibun cër mi maa kasaboo mi maa kasaboo ngir liñ fàggu de danañ ko ci xam ci xaj gi ak ñaan yi wallahu yàlla sariixul xisaab yi ku gaaw la mu ci réglé jaamam yi kem genn wàllu bëccëg rek mu réglé leen ba kenn ku ne xam fi nga xam ne fa ngay jëm kon gis nga ko aayaat yii ma taxañ ay xattee ngi ci kuy xaj màkka xaj ñetti weer la war yi diggi tabaski boo ci xasee soobu waroo joteeg soxna waroo def ak génn ak topp waroo daggi santé ci xaj soppee ko labay ko jéggalu yàlla ak wax lu baax ku xaj timit loo def ci saraxe ak lu ci xaju yàlla fay la kuy xaj tabaarakallaahu mën ngaa yóbbuwaale jaay te du ca yàq timit dara